xam nga li mu pousse élection yi di woote dialogue jour bu muy pousse élection yi nee na te pousse bi moom nangu ko élection pousse guñ ko ñun li ñuy wax mooy le 2 avril Macky Sall mandaam dana jeex bu ñuy waxtaan si suñu biir dàq ñu waxtaan loolu entre sénégalais yi nga xam ne moom Macky Sall bokkatu ci ndax constitution bi moo ko wax te bu ñu commencé salfaañe constitution bi lu ne mun nañu dab ab waxtaan day lalu ci kaw dëgg dëgg mooy le 2 avril war na jeexal beneen bi waxtaan day lalu ci kaw dëgg dëgg mooy yàgg na moom ruuma naat ab amnistie man bind naa ko ci téere depuis 2019 nii gannaaw ñaawteef yi mu defoon ci jamono yooyu te yeneen ñëw tegu ci ñaawteef ci wàllum koom ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku mbirum pétrole bi nga xam ne rapport inspection générale d'État moom moo ci wax moom responsabilité am ak responsabilité ay ñoñam euh, y compris y compris Atepa mii di wax donc ñoom ñii ñëpp seen dañ leen ci tudd waxoon naa booba dinañu ne dañuy def loi d'amnistie yàlla def yeneen ñaaw teef tegu ci ba ci coup d'état bii diggante gi boobu nañ fi ay sénégalais yu bëri ñooñu bu ñu amnistie nan la ñuy def ban loi d'amnistie moo leen mën a dekk dekk dekkaliwaat ñu delluwaat seeni kër ba loi d'amnistie moo mën li ñuy yàqal seen i mbir ñii am ci laago ñii yàq ci alal ba loi d'amnistie moo war a fexe ba nga xam ne ñooñu ñu delloo leen seen àq amut lu leen di delloo seen àq mooy ñu atte ñu ko def képp ku ci am responsable te enquête dafa war a leer ku ci amul looy def loo def nag soxla woo amnistie dañ la tooñ tëj la ci kaso bi kooku le 2 avril bu président Macky Sall demee ak président bu fi ñëw dañ da nga génn ci kaso yi bu fekkee ni amoo ci responsabilité waaye ku ci am responsabilité nga nekk ci kaso yi wala nga nekk ci gouvernement bi dañ la war a atte bu leen fàtte ni dañ fi boomoon ci anam yu xaw a demee nii ab président a vice président conseil constitutionnel ñu nëpp nëppal ko naam amoon na ñun ci atte waaye ña waraloon mbir mi ñu soqewoon mbir mi yàlla dafa dogal ba alternance su 2000 bi jotee ay dem loi si jaar fi ci lañu ñu comprendre kat am nañu ci ñoo xam ne amoon nañu ci ay responsabilité te musuñu leen àtte ñu bàyyi leen noonu ba ñu nekk yàlla dénk leen wala boog ñu dénk leen ñun ay responsabilités yu kawe ci biir réew mi ndax dañu bëgg réew mi ñu continuer ay defkatu ñaawteef def seen i ñaawteef jël alalu réew mi boom lu ay a ah, ah, jàmbur yàq réew mi ba ñu baal leen ñu dem dem seen yoon ku deful dara nag ku dee prisonnier politique boo deful dara kooku de sa dossier yomb na àtte dañ lay kii masawu la bu ñu waree jox ndàmpaay sax jox la ndàmpaay waaye ñu def dara nag dañu leen war a téye. parce que ci dialogue du ñu dialogue ak koo xam ne le 2 avril daf ñu war a bàyyee suñu réew. bala le 2 avril ku fa dem yaa ngi koy jàppale ci plan parce que bu leen fàttali le 3 le trois février. ba mu taxawee di wax ni que day dàqal élection yi te amuñ ci woon droit nee woon na pour nax nit ñi naa maa ngi leen di meebee ab dialogue national donc dialogue bi ci putsch bi la bokk ku fa dem yaa ngi ànd ak moom ci putsch bi ni muy daganalee li mu def loo xam ne àdduna bi yëpp xam nañ du dëgg même président de la république bi nga xam ne Abdou Diouf amoon na luñ ko ci àdduloo dellu na wax ni que fii ñu toll nii conseil constitutionnel rek la ñu war a déglu du Macky Sall du assemblée nationale du leneen lu muy conseil constitutionnel pour mu wax ñu kañ la élection yi di am ak naka lay amee pas Macky Sall négocier wuñu ak moom ci loolu te mun ku négocier moom loolu yaa ngi jalgati constitution yaa ngi war Sénégal